bisimilah inna la wa ma tawfiq ilallah ñu bëggoon a def vidéo bu gaaw rek ci ki nga xamante nii mooy Ousmane Sonko euh, ñun nag dañoo nekk taalibe Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Mbacke waaw mu nekk suñu yaakaaru tey ak suñu yaakaaru ëllëg léegi nag ñu gis ne injustice bi ñuy teg Ousmane Sonko dafa ëpp bëgguñu na bokk nag ci affaire xeex bi waaye nag euh, bo dinañ ci bokk dugal nañ ci suñu loxo insha allahu rabbi xam nañ leen li mu leen jaral rek jaral nañ la ko léegi nag lenn rek lañ ko mën a jàppalee moom mooy bracelet yii ngeen gis nii bracelet yii nañ ko jënd. بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلى الله dañu ne ñu def benn vidéo bu gàtt ci ki nga xamante nii moom mooy Ousmane Sonko ndax gis nañ injustice bi ñu koy teg métti na fu waaye natt ëpp na ko léegi nag ñun nag ñu leen wax ne yéen waa Sénégal na ñëpp dem jàpp ci lii nga xamante ni mooy bracelet yii waaw ndax lii si lay mën a def fond de campagne am defee nag xeex bi ñu xam ne du jeex ñun nag dañ ne woon du juddugu ñun Babacar mba Bambaaxe taalibe Serigne Saliou bi dañ ne woon du juddugu nag waaye dinañ tuddugu góoru Saloum na ngeen bismillah inna waliyallah wa ma tawfiq ilallah waaw baa bambaaxee sëñ bambaaxee maa ngi nii taalibe sëriñ saaliw bi waaw dama ne démb waxoon naa leen ngeen euh, wuti ji ci ngir jàppale Sonko ngeen xam ne nag liggéey bi du yomb affaire yi ñoom it dañu am ay contre mais xool leen lii xool leen lii xool leen lii yéen koy gis korte la korte yenn ba biir weex dóor ci suuf képp kuy liggéey te yaa mu leer na lay liggéey liggéey dëgg la gars yi dañ lay sànni eh, envoyé ay korte ak ay yóbbu la mën ta mais bii dañ koy yenu ba bisimilah inna waliyallah wa ma tawfiqi ila allah waaw ñëpp dañuy wax fàttaliwaat gars yi rek ñu dem bindu ji tey jënd bracelet yi jàppale Ousmane Sonko 2024 ñu yóbbu ko pale incha allahu rabbi ak bambaaxe taalibi Serigne Saliou bi waxoon nañ leen démb yenoon nañ ko ba ca kaw ñu dóor ko ci suuf biir weex ah tey gis ngeen ni projet bi demee waxoon nañ leen tamit ne grenade du tàkk Dakar tey gis ngeen ko loolu yëpp dara yàlla di si bi xurmatillaa waxu wati yi gis ngeen ne lépp yàlla dog